donc man mënuma am yëg-yëg ci projet boo xam ne man dama cee yàgg maandu yaa ngi dégg maandu bi mooy man xaw ma ku tooñ xaw ma ku def yaa ngi dégg et man dama yàgg estimé ne c'est une question privée entre deux personnes yaa ngi dégg loolu nag su amee nekk question privée man mënuma ci am lecture mënuma ci am gis-gis tey nag su fekkee dafa am gis-gis moo ci war a wax mooy ñëpp ñu doon accusé ne Sénégal justice bi nekkul justice bu indépendante Sénégal justice la boo xam dafa nekk justice aux ordres tey war nañu xam ne sur la base d'éléments probants justice bi prononcé wu na au bénéfice de Ousmane Sonko man personnellement sax loolu man moom laa ko doon ñaanal en quelque sorte parce que ñun bëgguñu homme politique ñu koy tudd ci yenn yi malheureusement nag moom fexe na ba empatré wu si lu mel noonu donc loolu daal mooy lecture bi nga xam ne moom laa ciy def euh, li ci des nag mooy li yoon wax ne corruption de la jeunesse am na ñoo xam ne tey lañ koo xam lire nañ ko ci texte effectivement délit bu am donc loolu on a qu'à l'assumer amee ah, responsabilité boobu koy gàddu mooy ka doon wootee à l'insurrection ka doon wootee au mortal combat sooy wut responsable demal ci moom tey aujourd'hui képp kuy waxal dëgg mun na ne moom kat ndegete su demoon wuy ji su ñu ko doon wuy jee ñu woo li koo xam ne waxul ñu bala kooku su doon wax kañ xanaa kon tool yi jeex na bu yàgg donc moom moo waroon dem bu yàgg wax leeral lii xew nii barki démb mu dem wuy ji tey lii xew nii rek mooy xew mais donc tey bëgg na dara xewul waaw c'est-à-dire donc pouvoir bi moom moo créé situation alors que suñ condamné woon ngeen ne way pouvoir bi ba léegi day complot loolu ay waxu caaxaan la li xew c'est très simple am na ku ñu accusé ña wuy ji wuy ji nañu te daw daw na justice bi prononcé wu na au de kii man xaw ma au bénéfice de kii la mais li am solo rek mooy su fekkee da ngay trouver responsable il faut aller le chercher chez Ousmane Sonko ça on l'assume yaa ngi dégg wane na ko et ñu ngi koy félicité justice bi en sot sorte saaga nañ leen xas nañ leen menacé nañ leen mais dawuñu taayiwuñu yox yoxiwuñu prononcé ñu le droit. waaw loolu moom appel rek laa ci mën a woote appel laa ci mën a lancé les jeunes bu ñu nangu ñu leen di manipuler bu leen nangu ñu leen di dugal ci loo xam ne seen yoon nekku ci yaa ngi dégg tey li xew wane na ne ku nekk su toogee këram yoon woo la nga wuy ji du ñàkk yow su fekkee ci dëgg nga nekk yoon dina la jox dëgg donc jeunes yi ñuy jéem a manipuler nañu toog seen kër sinon après. si y a des dégâts wala yu mel noonu ñoom ñoo koy assumer amul benn tey mu ngi ne tey lay y a eu 14 morts ak 17 ñuy nekk di manipuler naan woy 17 morts yi kii ak kii mooy responsable donc ku fi dem ñu dugal la ci guuta ba nga laru sa yow ak sa njaboot yéen koy fekkee ëllëg dañuy nekk di accuser diw ak diw naan ñu nekk responsable donc l'appel que je lance aux mooy nañu toog jàpp seen njàmbur maintenant nag ku ci nekk am na la neex am na droit expression bi nga am ci président Macky Sall nga ko de manière claire su fekkee ne dañoo toog ba élection jot mais toog nag di manipuler wala di ay xale wala di leen dugal ci loo xam ne loolu mënu ma ko d'accord mënu ma ko nangu